Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la ngay dox di jéggi ci ndox yu bon wala sax ci mbalit yu bari weñ yi di mbiw fépp nekk nag lu commune bi di Grand di dund saa su nekk loole nag dara waralu ko lu dul fosse yu fees yi ñuy faral di ubbi waaye ñi yeewoo ci boobule gox daal dinañ joxoñu baaraamu tuumaal ñii di ONAS ba tax na rek ñu ngi ñaawlu boobule mbir. fii moom am nañu ay situation yu métti parce que gis nga kon dèjà rek ndox beeg ak yenn façon yi ñuy am nii fii moom problème mu assainissement bi am na mais dafa entretien bi moo des assendissement bi nag man moom dama ci sawar a wax waa ONAS yi souvent dañuy ñëw di liggéey vraiment dañuy ñëw di kiire chaque instant chaque instant mais nit ñi nit ñi ñoo war a tamit jóg ci seen bopp yoral seen bopp seen entretien wu bopp avant état bi di ci teg seen loxo parce que boo xoolee fii lu waay neex def parce que des fois da ngay gis sax ku ñëw nee la mbedd bi mbeddu buur la te pourtant moom mi koy wax buur la xam nga kon amul sens muy def loo xamante ne ni soo waxee mun ne la mbedd bi mbeddu buur la parce que fii da ngay xool lu waaye neex defan ah. commune bi moom xam naa ni ñoo ngi ñoo ngi job mais seen job xam tamit xaw na des tuuti quoi sincèrement des na quoi commune bi moom ñoo ngi def ay affaire mais moo ngi des des na parce que da ngay xool lu waaye neex def fu la neex jël sa suuf fu la neex teg say bagage di liggéey fu la neex daal lu la neex nga def te loolu du yoon. di leen sant rek di leen nuyu ñun de ndox mi rek may suñu problème dañuy toog rek jëkk rek ndox mi di wàll di ñëw ñu bëggoon daal kuñ ci dimbale ba ñuy seet loolu daal lañ ci lañ ci soxla damay wax rek te yàlla rek a tax de ah ñun de gisuñu dara ñu di leen kontóor la rek bañ a dugg seen ci affaire yi rek ci ndox mi salte bi ndox foos bi la canal yi la waaw xam naa moo fees salte tamit waxatuñ ko parce que booy wër moom booy wër tempête Sénégal ñëwal Grand Yoff quoi nawet waaw ci Afrique Grand Afrique nga koy gis ak Sierra woon est-ce que comprendre nga buñ nee na grand bu nee Sénégal man su ma déggee naan Sénégal jikko yi ñoo setul moo tax Sénégal setul moo daf may jaaxal quoi ñi nekk buntu ñi dëkk Palais ay sénégalais lañ de original pale gana set buntu France te ay sénégalais lañ mais ni ñu respecté ñooñu lañ ñu respecté wulee oto mbalit bi ni muy dawee bi dakaar di roñ mbalit yi bu ko doon dawee Grand Yoff di roñ mbalit yi mbalitu kenn du fanaan këram nañ waxante dëgg aduna weesu na banlieue est comprendre nga ak capital xam nga on est dans un monde civilisé ñu ngi si vingt et unième siècle xaw ma est comprendre bu demee ba Sadio maane jël bambali bambali hors du capitale ah mu gën a seet buntu pale donc kon sénégalais yi salte wuñu quoi nañ dindi loolu si xel yi ñu bàyyi dëkk bi ñuy jël lépp politique pour ñu raax sax jàkka ji foog ñu politiquer ko foog benn autorité ñëw taxaw te autorité yi yàgg nañ ci monde bi cent 1960 le pays est dirigé des autorités mais booba léegi on est dans un même pays même place bougé wuñu oto bu paan lañ est-ce comprendre nga loolu nag lañ bëgg mu dañ métti na ma tamit Sénégal nañ bàyyi affaire yi ñuy politiquer ñu defar suñu gox parce que ñun rek ñoo ko mën a defar ñu bàyyi ay jikko sénégalais la waaw loolu du jikko sénégalais la quoi waaw. affaire yi moom du dara du dul waa xaw ma ONAS laa ko mën tuddee xaw ma ne ñuy ñuy gérer affaire égout yi parce ba day dem ba toj mais noonu lañ koy bàyyi noonu lañ koy bàyyi suuf si si dugg moo waral gis bi moo waral affaire bi dem ba benn moment day moo waral nga salte bi gis ni yëpp loolu moo ko waral. waaw ONAS bu doon bu doon euh, aigu bu yàqoo gars yi defaraat ko bon pour je pense que ne problème yëpp ñu ko am quoi. salte bi dama ne bon dama naan nit ñi population bi ñu ngi ci mais tamit état bi bu jëlee ay sanctions am teg ko ci ah yu bëri dina dañ parce que da ngay gis des fois nit ñëw saw ci mbedd des fois nga gis ku ñëw def lu la neex boo waxee mu ne la maa tey lu ma neex laay def. mais bu fekkonte ne ni tey dañu def benn affaire état bi ñëw sanctionné ne la lii bu ñu la fekkee ngay saw ci mbedd wala ngay def benn affaire ñu sanctionné la dootoo ko dootoo ko defati mais fii boo xoolee du ma ne fii ñu dëkk nii sax mais fépp foo dem bu ci inter xam nga dëkk boo koy defar bu ci intervention bëree rek du baax. mais fii intervention yi ñoo bëri kii sama lii la kii sama doom la sama rakk la sama mag la wala kii tonsom moo nekk fii léeg lii loolu moom à fur et yi sénégalais yaa ngi koy def seen xel ah dëkk bi du mais du avancé. loolu lañ ko jàppee daal ñàkk bi la la xëy na waaw waaye ci dimbalee woon danañ ko jël de. mais xam nga waaw mais li nga xam noonu dëgg la mais xam nga fii quartier flottant la parce que fii mooy li ma la wax léegi rek. Raaf bi ñu dëkk Bignonville la xeet bu ne mu fi xeet bu ne mu ngi fi koo gis mu ngi fii xeet boo xalaat ci Sénégal fii am na fii bon am na ñoo xamante ne nag dañuy fekk si nit ñi nit ñi set mais am na ñoo xamante bu ñu la fekk see nga am noo mel sa melokaan boobu la ñuy continuer ak yow. non jikko yi la moom jikko yi la jikko yi moom mënul dañ parce que tamit bon comme nii tey yow boo ñëwee sama koñ fekk ma tey. ma nekk nit ku propre di def lu propre yow doo sañ a def loo xamante ne nii nekkul luy propre mais boo fekkee nit di def naka sa dul noonu nga nekk tamit genre boobu da ngay ànd ak moom ci loolu mais jikko yi mooma ah, franchement bu ci sanction amee rek changement dina am tuuti quoi mais mais sanction bu amul. changement du mu mel ni nag mbir mi yemul foofu ndaxte lii di insécurité bi bokk na ci li bu Grand Yoff di joytu ndaxte ñi nga xam ni ñoo yor wàllum kaaraange bi seen liggéey dafa des ci boobu le fànn. bon côté insécurité moom dama yaakaar ne sax du Grand Yoff sax Dakar bi yëpp la waaw yi wax ne Grand Yoff la ëppee sax man man dama la man gisuma ne Grand Yoff la ëppee waaw parce que man dafa nag lay dem. dëgg la nag Grand Yoff nag am na loo xamante ne mu ngi fi ca salte wu salte bu fi ne waaw loolu tamit mooy loolu mais affaire bi du Grand Yoff Dakar bi yëpp la waaw parce que ñun dañuy dem fu ne bu dañuy génne Grand Yoff dem Grand Dakar ñu képp ñu fa ñu jógee Grand Dakar ñëw Pikine ñu képp ñu fa comme Dakar la ah parce que c'est parce que dëkk bi moo la yaa nga xam dëkk bi amul job booy dañu war a liggéey te liggéeyuñu quand même loolu noo war a mu demee nii mais su booy doon dóoru ku si nekk ñu am fu ñu teg mais vraiment yow doo tal ay affaire agression benn instant waaw booy dañoo dóorul moo waral nag mooy loolu boo dóorul nag gars nga xam nga bëgg ko lijjanti te mënoo ko lijjanti li ñuy dund Grand moom wax dëgg fa neex yàlla wax ko sax xajul fii quoi mais dañuy résumer ay quelques étapes rek quoi mooy comme insécurité quoi parce que munoo wax Grand te waxoo insécurité te insécurité bi tamit dañu si jàppale wulan ah benn monsieur le maire fa la ñuy njëkkee quoi si autorité yi insécurité grave chaque jour ñu dégg ko def si benn réaction amuñu insécurité bi tamit dafa dafa des cent pour cent bon nekk na nekk na milieu bi nga xamante ne ni ñëpp a ko bëgg mais insécurité bi moo tax nit ñu bëri duñ fi bëgg ñëw des fois sax da ngay jël taxi jóge fu sori ñëw taxi man bi ne la non man du ma dugg foofu heure boobu c'est parce que wóorul xam nga ñun ñëpp tamit bu bon loolu tamit yëpp bëgg nañu nit ñi bàyyi ci xel xam ni fii. ñi fi def façon yëpp pratiquement dëkkuñu fi dëkkuñu fi quoi dañuy jaal def li ñuy def continuer mais deru Grand Yoff mooy yàqu mais bëgg nañ tamit police bi gën a vigilant gën a am taxawaay gën ñoo jàppale ñoo ngi liggéey nag gaa ñoo ngi liggéey cent pour cent mais ñu gën a góorlu te tey te te dimbale nit ñi ci sécurité bi carrément quoi en même temps bëri na ay affaire agression affaire xam nga sàcc ak affaire yooyu daal bëggoon nañu nag état bi teg ci loxo parce que Grand Yoff moom bon nekk na bid nekk na bidonville quoi parce que euh, dafa tëju xeet bu ne mu ngi ci. boo ñu problème yi jànkuwante bëri na quoi bon man moom su may wax moom damay wax euh, euh, si police Grand Yoff avant ñu sonal. waaye parce que mënoo gis ay magum jëmm toog jàpp seen ñàmbur nga xam fu agresseur ne xam fu gars yi ne dama woo fa ñoo fekk ay ñu toog jàpp seen aise nga ñëw di leen di leen leen déranger yaa ngi fi di leen jàpp ak yu affaire demee noonu waaw ñun loolu moo ñu métti côté grand police grand police grand bi liggéeyul première des choses bon deuxième des choses monsieur le maire bon man moom monsieur le maire sax li ma wax parce que par bi benn instant jàmbaar la quoi waaw xëy na dafa amul ay moyens ak acte moo ko gën gën a sonal waaw mais sinon pas nag ba dëgg yàlla moom vraiment liggéeykat la quoi. deuxième bi mooy la police quoi waaw la police lu ñuy ramasser innocent ak liggéey ngay dégg ci Grand li mu bëree bandi yëpp mun nañ jàpp police mun nañ génn ramasse cent cent personnes doo si gis agresseur doo si gis malfaiteur te ñoo la gën a xam gaañaa ñun ñëpp fii lañ dëgg nii la leen di rombee six mille francs moo leen gënal jàpp benn bandi defeere loolu ñu ngi koy jooy fii Grand Yoff waaw insécurité bi des na lu bëri est-ce nga insécurité Grand Yoff moom pour mu dañ policiers yi xam nañ ko ñoom ñoo la gën a xam fi gars yi nekk parce Grand Yoff yaatuwul chaque jour ñu romb leen ñëw ramasse innocent loolu moom bokk na si wax dëgg fa neex yàlla li nga xamante ne man métti na ma Grand Yoff est-ce nga. coono yi ñuy jànkonteel nag tax na ñuy euh, sàkku ndimbal ci meeru commune bu Grand Yoff mu gën cee taxaw donte mi ngi ci euh, def ay jéego chers téléspectateurs d'Equivox TV lii lañ leen indiloon ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon jo ngeen jëf. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.